am mbégte encore une fois di jàkkarlook sunu mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi ñuy faral di suivre à travers votre chaîne la référence Dakaractu tey nag euh, dañoo am euh, gan comme niñ koy faral di defee saa su ne ay bés bu ne euh, ci waxtu wi di dalal kenn ci ñi nga xamante ni yàgg nañ di waxtaan ak moom ci lu soxal réew mi mu yàgg également di dox ci li nga xamante ni également moom mooy doxal réew mi kooku di di Diagne Fada nekk actuellement directeur général bu Sonacos nekk également euh, ki nga xamante ni moom moo di njiitalu parti bi di LDR Yeesal les réformateurs les démocrates réformateurs ñi nga xamante ni donc euh, moom mooy parti bi mu jiitee mu ànd ceeg nag ay kàngam yu bari yi nga xamante ni ñu ngi ci euh, parti boobule xëy na dinañ gën a xuus ci doxalinu boobule parti mais avant loolu dañuy ñëw ci lépp loo xam ne tey soxal na actualité brûlante donc actualité bi buñ ko waxee mën nañ xalaat justice mën nañ xalaat également économie mën nañ xalaat politique surtout donc euh, ci ponk yooyu yëpp ñu nar cee euh, ñëw ak moom ñu fàttali leen rek euh, ci également ay ndombal tànk yu mu jotoon am nekkoon na fi ministre de la santé laata muy ñëw ci li nga xamante ni moom moo di environnement ba fi nga xamante ni fa la mujjee woon ci gouvernement Ablaye Wade defe naa mu ngi fa jóge woon en 2002 muy le ministère de la jeunesse konk donc moom mooy Modou Diagne fata moom la ñu am mbégte tey waxtaanal ci lu soxal réew mi président Euh, Modou Diagne Fada ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog également internet internetu Dakaractu. salaamaaleykum euh, ñoo ngi nuyu mbokki internet yëpp ñu ñuy seetaan ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak ñu ñuy seetaan ci bitim réew. Mm-hmm. di la nuyu Cheikh Sadibou. yow ak waa Dakaractu yëpp. yow ak sa équipe bi nga àndal. Mm-hmm. Euh, ñëw tey ngir ñu waxtaan ci lu jëm ci réew mi. Mm-hmm. ak ci poñ yi nga xam ne moom nga tënk léegi. ne ci la waxtaan wi war a lalu euh, may am mbégte trop nag di jàkkaarloo waat ak yow euh, ngir jaar ci yow mun a wax ak euh, sénégalais yi ci suñu gis-gis ci lépp lu nga xam ne laaj la boo ñu boo ñu laaj. Mm-hmm. ñu ñaan rek waxtaan bi comme ni ñuy am faral di ko wax mm-hmm. luñ fi wax rek yàlla nekk njëriñu njëriñu askan bi. donc dañuy dugg ci waxtaan bi euh, defe naa euh, temps amatul euh, li gën a jàmp ci li nga xamante ni xëy na war nañ ko mën a waxtaanee wala sax ponk bi nga xam bëgg naa ñu gën njëkk ko soulever defe naa moom mooy l'actualité politique te li ci jiitu moom mooy décision bi président jël defe naa boobu ba léegi jotuñ cee sax waxtaan mooy décision bi nga xamante ni daal dina koy jël ne moom du nekk candidat en 2024 voilà defe naa ay at yu bari lañ tok depuis bi ñu ci élection 2019 yi muy euh, traîner bobulé <laughs> voilà bobulé décision ba euh, en 2023 ci la soga joxé point position par rapport ak point bobu nga xamante sénégalais yu bari ñu ko ci doon xaar ñi né bon pression la né euh, dafa euh, top li nga xamante mom moy euh, décision ak sàmm na kàddu gi nga xamante ni joxe depuis donc. gis-gis yi wute yow en tant qu'acteur nga bokk ci coalition bi nga xam ne moom la jiite muy Benno Bokk Yaakaar euh, bi nga yëgee maanaam loolu bi nga ko dégloo bu baax religieusement yan déduction nga ci def. waaw président Macky Sall euh, <coughs> Sénégal yi dañ ko fal depuis 2012 mu dem ba 2019 Sénégal yi falaat ko. mandat boobu jeex 2024 euh, bañ koy falaat 2019 ndax man ci laa bokkoon ci ñu ko fal 2012 falu ko mais 2019 ci ñu ko doon fal laa bokk yaakaar naa ne ñun ñëpp bi fait, ñëw engagement bi ñu fi y a euh, surtout ginnaaw référendum 2016 bi campagne électorale 2019 pré-campagne électorale 2019 Lim doon wax bi mandat bu mujj que ñun ci la euh, jamono am ay borom xam-xam ci walu jaune taxaw wax ni ñu constitution bi de euh, bu président Macky Sall troisième candidature bu il Sénégalais fallait troisième mandat euh, am ñeneen ñu wax biñ ko ci ngir bañ réew mi ci guta ngir bañ tamit euh, euh, réew mi taxaw mu du ci tontu Ni oui ni non am ñu bari ñu nga critiquer ci man gëm naa ne jamono boobu bi ñu koy laaj loolu noonu la mënoon waxee parce que lu mu ci waxe woon rek mu jur tey situation bi ñuy traversé. donc jotul woon pour yow. pour man jotul woon. alors bi mu jotee je crois que joxe na xalaatam respecté na kàddoom euh, respecté na ay engagement te jàpp naa ne loolu ñun ñëpp dañ ko ci war a ndokkeel dañ ko ci war a félicité. Euh, dañ ko ci wara ñaanal ndax itamit Sénégal da am image bu nga xam daf ko am ci bitim rew ñu bari bari du ko xolé muy la plus grande démocratie de l'Afrique muy rew mu nga xam dafa am ay tradition démocratique euh, muy rew bu nga xam ñu bari bari euh, ci Afrique en tout cas man sama xarit yi nga xam dañu nekk Afrique biñu déggé bi woo nañu ma trop ci li nga xam ne moom président Macky Sall def pour waree né Sénégal d'al exception bi mu nékkone ci walu démocratie ci biir sous-région ci biir Afrique exception bobu le continuer di di nek. donc du pression pour yow. non euh, xam nga adversaire politique bi mun na wax né pression la bu ko neexee waaye yakarna né ko xam président Macky Sall ak ni mi fonctionner pression yi mu fi dénk yi mu fi dékku. bari na trop xam nga sénégal nga dul mën a defee lu baax ndax boo defee lu baax sax ñu bëgg koo gàkkal ñu bëgg koo tilimal mais jàpp naa ne kenn waru woon wax wax ju mel noonu dañu waroon sant yàlla sant ko ci euh, li mu respecté kàddu léeg-léeg ma dégg ñu ne non non non jarul sant parce que loolu la constitution bi wax loolu la si wax loolu la mais jamono ji yàqu na bu nga xam ku def loo war def dañ la ku def loo war def dañ la war gërëm ndax souvent nit gis lu mu war a def mu xam ne lii la yoon wax te du def parce que ñi bëgg jaay doole ñi def euh, li ñu war a def ñi nga xamante ne war nañ ko def te duñ ko def dañoo bari dañoo ëpp hmm. waaw dañoo ëpp ba nga xam nit bu amee taxawaay bi mu am te moom mu waxal ko boppam ne yoon mayoon na mu def troisième mandat hmm. loolu gis-gisam la mu amoon mu amoon mu amoon mu gis itam ne amoon na ay soutien ndax ay téméri un maire taxaw nañu ay euh, fukki fukki président de conseil départemental taxaw nañu ay nangami nangami kilifa ci walu go mën di jël taxaw nañu ne ko yañu doy sample sont sampo ñu jappalé la kon mënon na sukkandiku ci tu euh, na ba def lu nga xamné du ak def. mais le fait que mu def lolu yakarna dañ ko ci a maintenant ñun Euh, débat boobu kenn dégguñu ci ñun kenn mësuñu dégg ñu ne président Macky Sall dafa war a def troisième candidature kenn mësuñu dégg ñu ne président Macky Sall warul def troisième candidature dañ cee maandu woon ubbi suñuy gët nag di xool fan la wànnent di mujj ak bëtam bu ñu daan laaj lañ daan wax mooy paaka kenn du ko jiitu ci mbaram parce que ñi ko jiitu woon ci mbaram yépp tay ah amna na nu leen sénégalais yi di di di xolé ña bokk ci wàll gee doon wax ni da wara def 3 troisième mandat amna ñu leen sénégalais yi di xolé waye ña bokk ci wàll gële tamit doon wax ni limuy def yépp 3 troisième mandat taxone mu koy def amna tay ñu leen sénégalais yi di di di di xolé donc yapp na né enseignement biñ ci wara tirer rek moy situation politique fay toll fu nga xam ne teey daf ci daf ci baax bala la sa kàddu di rëcc ndax kàddu mom bu la xasse rëcc rek mënutoo koo dabu mo xeer wo xassani la mënutoo koo dabu mais au-delà de euh, aspect boobu pour terminer rek juste point bobu au-delà de de ces enseignements est-ce que amul aussi benen enseignement bo xamanteni ni mën nañ ni sax c'est l'enseignement suprême muy la leçon euh, que le président peut-être euh, euh a donné

Africains beaucoup de respect parce que de bari barrer l'union liée. la couleur de la peau euh, la géographie l'histoire la culture hmm. dafa bari lu ñu jokkale moo tax mu am ci ñoom wegeel nous nag wax dëgg yàlla Sénégal est euh, Une démocratie dina fait pour nga méngale ko ak réew yu bëree bëri parce que fu nga xam ne ba ñu commencé wote yàgg na trop mu nekkoon capital réew yi nga xam ne ñoo bokkoon ci Afrique sowu jantee làkk français ñu yàgg fee wote yàgg fee campagne depuis Ngalandu depuis Carpo ah depuis Lamine Gueye depuis Senghor ñuy wote euh, gëm naa ne taxawaay bi ñu amoon muy avance gi euh, maanaam euh, raw gi ñu rawoon président bu fi ñew njiit lu fi ñew da nga wara fexé rek ba Sénégal raw googu muy raw ci walu démocratie walu droit de l'homme muy continuer di ci raw parce que lool moy li nga xamné moy euh, héritage bi génération yi rombu bayé ñu ñun ñi nga xamné tay tey ñoo ŋànk ñoo ŋànk réew mi. d'accord donc man gëm né mm-hmm. euh euh, duulu ma parce que man dama gëm génie euh, sénégalais dama gëm aussi génie euh, leader politique sénégalais yi coow li mën na bari wax ji bari mais d'où de dem mukk mukk mukk mukk jusqu'au bout parce que lolo du suñu nature ñun waa Sénégal dañuy sam lu nga xam ne ñëwagul te président Macky Sall décision bi mu jël ci yoon woowu la la la encore une fois ñukay koy folle euh, te diko féliciter ci euh, posture bobu nga xamné euh am ko muy posture bu nga xamné da fay honorer Sénégal muy posture bu nga xamné da fay honorer au-delà du Sénégal fay honorer toute euh, l'Afrique parce que amna ñu nga xamné comme ni nga ay exemple yu xew ci sous-région bi ay doxalin yu xew ci sous-région bi ndok ba nga xamné Sénégal tàbbiwul ci lolu d'accord wax nga ko léegi posture bu bu ñu bëri naw la mais defe naa euh, wute naag posture tey bi nga xamante ni am na ko euh, ci euh, choix bi nga xam ni war na ko def par rapport ak successeur am au niveau de de de Benno bi nga xamante ni ci nga bokk également mu doon mbir mu xaw a tàggatémbe ci ñu bari parce que dañ jàpp ni peut-être du du loo xam ni dina difficile trop ci président mi nga xamante ni xam na ay ñooñam xam nañu mu àndal xam na ñi nga xamante ni mu ngi leen jiite donc tey euh, coow li ni mu baree ak euh, lépp loo xam ne tey doon na euh, ay possible candidat yoo xamante ni ñu ngi leen di lim xëy na yaa ngi leen di dégg ku ci mel ni Amadou Ba ku ci mel ni Boun Abdallah Dionne Mahammed Boun Abdallah Dionne ku ci mel ni également Mame Boye Diao Abdoulaye Diouf Sarr Aly Ngouille Ndiaye et nga xam leen ñoom ñëpp tey yow nga bokk ci Benno profil bi nga gis pour succéder euh, euh, au président Macky Sall pour yow kan la non bala ñuy wax euh, ci loolu dañuy wax d'abord ci li nga jàppee comme jafe oui bu président Macky Sall am wala jafe-jafe bu benn bokk yaakaar am pour tànn mbër yow mi nekk ci bitti di xool mën nga ko jàppe noonu ki nekk ci gis ne su fekkente ne da nga teg ci taabal ji mbir mu am solo mooy kan moo war a nekk mbërum Benno Bokk Yaakaar te ñëpp xam nañ ne mbërum Benno Bokk Yaakaar fu mu jaar bokk ci mbir yi nga xam ne ci mbër yi ñuy gën a xool la mbër yi ñuy gën a teg bët la euh, ci wote bi ñu jëm euh, kon suñu tollee ci di ko war a tànn euh, c'est normal d'abord mu am xëccoo parce bu xëccoo amul woon mooy euh, sunu bennoo gi amul vitalité manam amul des hommes et des femmes yu am ambition amul ay profil yu baax amul ay des hommes et des femmes yu am ay compétences am ay profil yu nga xam ne may na leen ñu yootu nekk mbërum Benno Bokk Yaakaar pour dem xëccoo ji bopp bopp réew mi mm-hmm. yaakaar tamit su amul euh, day rek kon manam euh, kilifa gi war tan tànn lu ko neex def manam mën euh, xey xey rek du tàggu kenn du waxtana ak kenn du diso kenn ne mbeur mi la tan mais je crois que liñ ci gis moy li jël temps moy jàpp naa ne mooy waxtaan yi waxtaan jëlal temps ndax mbir bu mel noonu il faut ñu waxtaanee ko bin bim ne mom dematul rek. am na ñu commencé am ambition pour topp place am am na ñu ko wax ca kaw ñuy dégg am na ñu nga xam ne waxaguñ ko. am na dañ ko noppiwaale. am na ñu nga xam ne dañ ko noppiwaale am na ñoo xam ne waxaguñu. am na ñu nga xam ne nag wax nañu ba ñu jàppee leen ne ah ñii de ay ay ay mbër lañu. am na sax ñeneen ñu nga xam ne waxuñu ci rajo yi mais bind nañu président. Hmm. nekk ñun tamit dañoo bëgg a nekk. dañoo bëgg a nekk ci ci ci ci candidat yi donc loolu bu amee nag moom mi ñu jiital il faut mu laal ay waxtaan ay waxtaan yu yaatu parce que waxtaan yi fu mu jaar yaatu mais aussi fu mu jaar yàgg parce que il faut nga am force de force de force bu nga xam da la mën a may nga persuader nit ki ba yóbbu ko fi nga bëgg mm. mais boo ko bëggee wax ne ko par force da ngay tax doxale nii te mu nekk nit ku nga xam ne dafa am liberté boppam démocratie daf ko may li mu def politique daf ko may li mu def soo ko bëggee rek xëy xëy forcé ko mën nga fut mën na nekk saafara bu nga xam ne dafay jur jàngoro donc lal waxtaan waxtaanu yaatu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo yëkkati ak ñi yëkkatiwul ak ñi nga xam ne ñoo wax ak ñi waxagul mm-hmm. dama gëm ne loolu mooy démarche bi baax manam temps bu mën di pour que rek ñu atteindre l'objectif, bi objectif mooy am benn mbër ñépp Nous euh, bootu ci ginnaaw temps bu mën di jël na ko jël feeg nag ci date bi nga parrainage mhm. parce que de toute façon euh, du benn bokk déterminer le calendrier républicain mhm. le calendrier républicain moom daf daf war suñu kaw dafa war ci kaw benn Bokk Yaakaar kuy politique ku nekk da nga ko sóoraale xam nañ ne parrainage bi fin septembre la. le 27. te parrainage bi moom falaa budda doo fa dem te. Mhm. amuloo amuloo mbër. Mhm. mais jëm nañu ne balay boobu mais benn Bokk Yaakaar dina taxawal euh, dina taxawal mbërëm. Mhm. donc man jàpp naa ne. Euh, Waktu c'est très normal mu jël temps mais est-ce que est-ce que est-ce que tey jàpp nga ni ni mu duré eh, ak aussi bu ñu demoon sax lu mu yàgg yàgg yàgg bu ñu demoon ba am peut-être benn mbër boo xamante ni moom la ñuy jiital eh, jàppoon yi ñeneen ñi dinañ ku ci nekk di nga jéem a ber sa bopp est-ce que craindre par exemple ay eh, maanaam benn césure boo xamante ni dina yàqal coalition xam nga xam nga dama la bëgg wax xam nga ay waxtaan lañ toll. waxtaan yi ñu toll nag euh, man damay am yàqin rek wala ma am njort lu rafet ne jàmm lay jur. Hmm. jàmm mooy mbër mu nga xam ne ñëpp ànd nañ ci loolu mooy li nga xam ne euh, euh, mooy li gën. Hmm. wante nag kenn ku nekk si ñun am nga sa gis-gis hmm. am nga sa xalaat ba ci man mii di wax ak yow waxuma la mbër muñ tànn dinaa ci ànd. am kenen keneen ku taxaw feneen mais waxagul ne mbër mu ñu tànn dana ci dana ci ànd parce que dara wéyagul ñi nga xam ne dañu nekk en course tey di dox di wax di yek di wàcc suba buñ ci mën nañ ci tànn meen mbër mu nga xam ne mais ma sàmba day taxaw fale ne man mbër mi doyu ma ma taxaw fale ne man mbër mi doyu ma mm-hmm. mais su ko defee tamit ñooñu dañuy nekk seen droit donc mbir mi moom. Mhm. waxtaan dong mooy li nga xam ne moo ko mën a sottal. te waxtaan bi moom fu mu mhm. jaar jël tànn ndax même bu ñu tànnee ba pare. Mhm. am na yeneen waxtaan yu ci war a xewaat encore. yëf yi yëf yi yëf yi yombiwul noonu. day soog a tàmbali daal waaye yëf yi yombiwul noonu parce que nag li ñuy wax mooy. kan mooy nekk mbërum coalition bi ëpp doole ci Sénégal. ñi jot a manifesté wagum ce que gis nga ci koo xam ne yor na. Euh, bon pour ne pas dire copie crachée bu Macky Sall mais yor na ci ay qualité yo xamné tay bon copie crachée mënul nek parce que Macky Sall ben la ci Yalla sak comme nous sak Ben Abdoulaye Wade comme nous sak Ben Modou Diagne euh kenn ko nek am nga say qualité ak say ak say ak say ak say défaut. mbeur yi nga xamné ne <coughs> ñoo sampo nit ñi xam leen ak ñi nit ñi xamul kenn ko nek am nga say say euh, say qualité am nga aussi say say défaut mhm. mais li ma gëm mooy unité rek mhm. mon ci l'unité la plus large possible parce que amul kenn ko ci jël mu man ne man dong sunuma ma mhm. dina gagner gañe amu ci président Macky Sall daf ko xam ba nga xamné bi mu taxalé légui nanguwul benno tas dafa téye benno parce que mom xamna lu benno di jari dem ba yok ci yenen parti ba ñu wax légui benno et la grande majorité présidentielle durée de vie wu bennoo également mom xamna mom xamna voilà mom mom xamna na ñu bëri déjà daf leen jaaxal sax mom xamna na mhm. lan la and di jari donc gëm naa ne candidats yi nek en compétition aussi bu ñu doful war nañoo xamné and rek mo ci mëna a mhm. amul kenn ku nga xamné bu bu béro mom dongu dem bon beru nag yomb na bokk ci élection moom yomb na. Mhm. maintenant nag ndax dañ ci jëlee ndam loolu mooy problème. jàpp nga ni gi am na koo xam ne tey par exemple. mais bari na ñi fi nekk mën na mën mën nañ dajale euh, maanaam force non ñi attan mhm. ñi attan mbir mi bari dañu mhm. ci biir ñi koy laaj loolu amul benn na table maintenant ku ci gën nag kooku moom xañ na yàlla moo ko xam mais euh, ñu bari ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy laaj ñooy laaj yëf yi mais attan nañu attan nañu attan nañu loolu amul sax sikki sikki sàkk. yow profil bi nga bi nga gis euh, boo mu mënee wax ñett ci ay critères am ak contexte bi ñu toll ak. Euh, man daal li ma li ma gëm mooy. Mhm. ki ñuy tànn ci ki ñuy ki kiy jiitu daal war na am d'abord euh, li ñuy wax ouverture maanaam ubbeeku. ubbeeku bu nga xam ne euh, ubbeeku bu yaatu la mm-hmm. loolu c'est très très important mm-hmm. parce que léegi fi politique toll amatul man dong man lépp dañu toll ci euh, moment bu ñuy wax leadership éclaté mm-hmm. man tey mën na maa taxaw wax ne ku bëgg département Kébémer su ma ci àndu du antu Oumar Sarr mën na ko wax Dagana euh, keneen mën na ko wax ci ci dëkkam mais bu njëkk loolu amul won bu njëkk dañ nan parti au pouvoir rek mom mo mo mo def ni mhm. donc ouverture mhm. xam euh jamono leadership éclaté lañu nek nekk mhm. kenn ku nek da nga yoré say nen peinture ko sa couleur parti kee yoré ay nenam peinture ko couleur parti kee yoré ay nenam peinture ko couleur parti wala bok couleur département ñu jël nen yooyu yëpp dugal ci benn mbuus jël benn nit jox ko mu xam ne moom mbuus mi mu téye du neni boppam doo nga ci nekk waaye am na yeneen nit yu ci nekk yu ci indi seeni nen mu téye mbuus mi loolu rek mooy li ñu mën a may may ndax donc ouverture deuxièmement yi tamit mu nekk nga xam ne euh, Sénégal yi daañ ko xam ndax tamit feeg ben ni weer juróom ñaari weer construire fi notoriété dina jafé té ki ñu teg ci bopp bi mom war na nekk nga xamné ne kenn dootu ko présenter Sénégalais mais aussi mu am compétence am compétence nak compétence technique mu am vision xool comprendre ce que c'est que la géopolitique tey le contexte géopolitique euh, Afrique de l'Ouest mm-hmm. géopolitique Afrique la place Afrique comprendre les relations internationales mm-hmm. nan la koy nan en fait Il mm-hmm. bari ay atout hein, yu nga xam ne fa la de candidat ba un homme d'expérience un homme d'état xanaa loolu mooy li nga comme. d'accord comme comme profil. ñu euh, clôturer point l'actualité politico-judiciaire euh, Ousmane Sonko ak euh, actuellement ngi au niveau de l'hôpital principal de de Dakar avons une situation difficile nga xamante actuellement Euh, voilà donc euh, li ko ko jural voilà ñu bëri jàpp nañ ni euh, comme autorité judiciaire yi li nga xamante ni wax nañ ko moom mooy dafa am ay succession de faits yoo xamante ni dal na ci kawam ba mu waral tey ñu daal di koy jël yóbbu ko fële nga xamante ni moom mooy maanaam daal di koy làq jant bi mu doon mbir moo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu ñu bëri sax ñu ngi demander à ce que ñu libéré ko bi nga yëgee euh, jafe-jafe boobu yan euh, lecture nga ci def ak aussi euh, balaa ñuy ñëw sax ci li nga xam moom mooy dissolution parce que dissolution bi automatiquement moom moo topp ci condamnation bi maanaam biñ ko placé su mandat de dépôt après dañoo dissoudre partem est-ce que tey Sénégal war na mën a toll président foofu nga xamante ni maanaam dinañ jël ay parti di leen dissoudre est-ce que du gàkkal suñu démocratie waaw Euh, Ousmane Sonko. Je uh-huh. euh, bien entendu qui def politique du Sénégal kuy def politique en euh, Afrique. Uh-huh. même en Europe nous nga Afrique. Uh-huh. intéressé alors je que que wax Modou Diagne Fada yéene wuko ken tax nak euh Ousmane Sonko père de famille la. fa yoré njabot yoré ay soxna yoré ay euh donc jàpp naa ne du kenn ku nga xamné euh mën naa jël sa moroomu nit diko ko kasso kaso. bon maintenant nag engagement politique ak euh, xëccoo politique man na yóbbu nit kaso ndax man mii di wax ak yow tëdd naa kaso kon côté aussi du fait nouveau ci mbirum xëccoo politique président Abdoulaye Wad, tëdd na kaso ba ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne euh, donc kaso du du lu nga xam dina jaaxal nit ci politique mais kenn ko kenn yaakaar alors li ko jur nag ku ne mën nga cee joxe sa xalaat mais jàpp naa ne euh, ñaari fee walla ñetti fee yi nga xam ne moom ñépp dañ koy fàttaliku mooy diggante bu dox ci diggante Ousmane Sonko ak benn xale bu jigéen Adji Waouh, hmm. muy euh, waaw alors je hmm. nag foofu parce que je demande du lit. là. te sais que bu gens euh, li Je wax ci viol y xam mbirum adultère Je sais que je niñ koy caractériser ci ji ma ont donc man mais ce moo porter plainte yoon war a atte après yoon joxe na atte yaakaar naa loolu mhm. lu ñëpp gis la ñaareel bi mooy moom mu tooñ mu bu tooñ mu diffamé mhm. walla boog benn ministre jàpp ne dañ ko diffamé ministre boobu yi tamit mhm. ne citoyen la dañ ma tuumal damay dem ci yoon foofu yi tamit ñu atte ba léegi yaakaar naa atte bi jeexagul alors yooyu ne bi mu amee am ay réaction yu am njëkk nañ fi jaar ay bakan dé 2021 mille vingt mhm. ñu ñëwaat juin 2023 ay bakan rotat toujours ci ci mbir yooyu xëccoo bu nga xamné amna digënté na euh, Ousmane Sonko. ak euh, euh, nguur gi mhm. ak euh, xëccoo politique mhm. ba loolu ay lor ay lor ay bakkan rocc mhm. ay bakkan rocc mu nekk lu nga xam ne ñu ngi koy métti parce que lenn warul jar loolu maanaam dafa am lu nga xam ne lenn waru ko jar maanaam xëccoo politique warul indi ay bakkan yu wadd naka nga jàngatee discours politique am maa ngi ci ñëw mhm. xëccoo politique warul am warul tax ay bakkan wadd mhm. xëccoo politique warul tax ñu yàqal ku ci yoonam nekkul mhm. malheureusement yooyu yëpp dañ ko dañ ko fee dañ ko fa gis bo li ci topp maintenant mooy wax ji wax ji ñagas na trop waxi Ousmane Sonko ñagas na ñagas na trop euh, wex na xart aussi ba demoon nañu moment bu nga xam ne ñu bari jàppoon nañ ne non kii moom kenn ñëwu koo laal ndax ku ko laal réew mi tàkk te loolu bu wéyoon kon réew moo dul amati maanaam bu fekkoon am na benn mbindeef bu nga xam ne dafa bari doole wala nit ñi dañ ko topp bu nga xam ne même bu tooñee kenn du ko ñemee laal ñu bakk ca maanaam ñu bakk ca noona kon réew moo fi dul amati ndax bu boobaa. kenn ku nekk lu la neex euh, lu la neex def te kenn du dal sa kaw. mais discours bu ñagas boobu est-ce que du stratégie politique am rek. peut-être xëy na mais mais xam nga noonu noonu la mën a defee politique quand xam nga man vraiment opposition. kenn du ko jàngal Modou Diagne Fada. Hmm. nag man président Wade dama yar. Euh, xam naa bu baax luy opposition. xam naa bu baax luy tàngal. xam naa bu baax luy marche. xam naa bu baax luy sànnante xeer. xamna bu baax luy leneen ak leneen xamna ko donc kenn du ma jàngal lu ñuy opposé wo waaye man la ma gis du opposition man la ma gis dafa nekkatul woon sax finalement politique ah oui lan la woon pour man nekkatul nekkatul nekkatul woonati sax politique ndax nag da ngay dem ba sentir haine man damay fàttaliku président Abdoulaye Wade bi ñu nekk ci digg opposition buñ nan def ay déclaration à la presse wala ay conférence de presse texte liminaire bi buñ ko ko joxé da koy lire di ko lire, di ko liiraat di xol mba phrase bi buñ ko waxé kenn dañu wax appel à l'insurrection mbaa phrase bi buñ ko waxé kenn dañu wax diffamation mbaa phrase bi buñ ko waxé kenn dañu wax fausse euh, diffusion de fausses nouvelles mbaa phrase bi non, noonu la ko doon topé mom en tant que juriste en tant que opposant aussi tout le monde savait qu'il était un opposant sans concession wante nag ci discours ma ci waxam lu mu wax lu nekk rek dana ko ëmb ëmb bu nga pour que justice soit ko tëj ko ci dina mais on on l'a pas vu ici c'est-à-dire parfois il y a des discours assumés d'appel à l'insurrection assumés Là, on a un politique de quoi def gis nga Cheikh Sadibou man gëm naa courage Moi je suis un homme politique courageux mais la témérité n'a pas sa place en politique parce que beaucoup de doxalee rek yow yaay gis la muy wàññi parce que le peuple sénégalais est un le peuple sénégalais est un peuple extrêmement mûr et parfois da ngay am impression que nous ñoo ñoo raw sax leur classe politique malheureusement vous faites que da nga manqué expérience politique qui ont manqué maturité politique vous parlez langue politique mais mën toujours am qui sénégalais est-ce que situation est na quand même. xam nga ñaari moom la sukkandiku ba dugal ko kaso te ñaar laa ñaar laa ci jot a wax waaye yeneen yi ñu mujje gàll ci ndoddam maanaam yi ñu mujje gàll ci ndoddam man gëm naa ñoo gën a garaaw sax ñaari dosi yi nga xam ne euh, wax nañ leen euh, loolu benn la maintenant dafa am lu nga xam ne man dama ci maandu xam tax ma ci maandu état lañu yor mu yor ay information kenn ku nek ci ñun sa dugg ak sa génn bu ko état bëggee xam-xam ko organisation politique bu nek membre yi ko constituer seeni dugg ak seeni génn su ko état bëggee xam xam ko seeni waxtaan nu biir seeni waxtaani suuf seeni waxtaani kaw seeni dem seeni dikk su ko état bëggee xam xam ko donc l'état a ses raisons raison yu nga xam xagn xañ na ba nekkoon becc ci mbedd mi ñu ne ah waaw ñi kay bañ leen waré tas yàgg donc c'est normal pour yow. non non non wax hmm. euh, ma lol de. mbeug rek nga nga déglu ma dama ne la état mo am ay raison mais vous cautionnez quand même que. non non non non non je ma dégloo rek. da nga mm-hmm. da nga comprendre. Mm-hmm. boo ma dégloo rek da nga comprendre. Mm-hmm. dama ne la état. raison parce que dissolution d'un parti politique c'est un acte grave. c'est un acte grave. c'est-à-dire état rek mënu raison jël rek parce que euh tejna tejna Ousmane Sonko non naa tas non peut mënul non. l'état a ses raisons. voilà l'état a ses raisons peut-être que moi je ne sais pas. Hmm. que toi tu ne sais pas. parce que l'État nous ñu jël ndoddam. Hmm. def ci atteinte à la sûreté de l'état diffusion de fausses nouvelles tous les chefs euh, d'accusation, ils ont ñu teg huit au total. huit au total comme nous nga Nous waxee aussi hmm. ñu teg peut-être que l'homme sous soubassement bi tax ñu tas parteem parce que dès l'instant que parti bi jàppetuñ ko organisation politique mais dañ ko jàppe peut-être leneen loolu mën naa tax état sukkandiku ci ba tas ba déclarer né parti bi tas maintenant li waa Pastef war a def wala bokk li nga xam ne moom la leen yoon may mooy bu leen neexee ñu dem defi recours mm-hmm. xañ na bu recours amoon débat am daañ mën euh, gën d'Uguchi, dugg ci dugg dugg ci mbir yi. wala bok suba instruction bi jeex ñu wara dem tribunal wara até Ousmane Sonko. condamnation bañ koy tek itamit mën na justifier. li tax tay ñu tas. ñu tas parti tay mu ngi ci situation bu difficile dima ko waxé sank nek ci grève de la faim d'ailleurs sax amna délégation bu demoon ci Seigne Mountakha ba mu yobante len ci Ousmane Sonko donte dem nañ fa demb te jotuñu koo gis mais amna yobante buñu buñu buñu buñu ñu bu ñu am euh, yóbbante wu khalife bi pour Ousmane Sonko yow boko ko doon tay tey euh, ci situation bi mu nek ni ci grève de la faim bi lan nga koy conseiller mu baye grève de la faim parce que euh du lol moy solution bi ndax euh, grève de la faim moko marche une marche une manifestation une forme de lutte politique la forme de pression la yi tamit exercer ci vis-à-vis il y a des formes de lutte dangereuses la parce que bala nga un naam da nga fiy un bala ngay say droit da ngay am kattan ah,

Mm-hmm. en tout cas euh, nit euh, di xeex mm-hmm. di xeex ba musiba man dal ci mel wala bokk nga am ci ay yu nga daf lay diminuer ba projet bi nga yor wala yi nga yor d'accord ñu euh, jeexalee rek ci point boobu Euh, situation politico judiciaire bi gis nañ tey ay ndaw yu bari ñu ngi laaj seen libération euh, di demander à ce que ñu libere leen amaana bon ñu bari ñu ngi wax ni toll nañ ci junni ak lu topp ay gone yu ñu jàpp ci manifestation yi yeneen ak yeneen et cetera ñu ci am na ñoo xam sax ñu ci bari ci Pastef la ñu bokk euh, tey est-ce que jàppoo ni tey lii di liberté yi dañ ko actuellement dañ ko salfaañe fii ci Sénégal non salfaañewuñu liberté yi liberté dafay am lu mu la may am lu mu la xañ dafay am lu mu la may nga koy def dafa am aussi lu mu lay xañ ñëw fekk kër jàmbur nga sànni fa cocktail toog walla nga taal ko wala nga jéem koo taal walla fekk yëfi jàmbur business bu jàmbur nga taal ko wala nga jëm koo taal Euh, wala boog dañuy téré ku manifester fi yow nga ñëw manifester ne man ma maa manifester. Euh, rew mu nek dafa am organisation rew mu que dafa am organisation. Mhm. té kenn warul jalgati organisation mom Ousmane Sonko mi su président de la République. Mhm. ah bu ay nit défé lolu di tal alali càmb yàq alali càmb yore ay ay ay ngànnaay ah yakana naa dana leen jàpp kooku moom état bu man di doon nga jàpp len jaareel ci jaareel ci yoon donc fofu man gisuma fi li ñuy wax détenu politique par contre ci bir ñom nak lolu man sama point de vue la su ma ñu trier parce que nous li nga def xam nañ peut-être am na nga xam ne dañ ci am nga dañ dox ñu hmm. Hmm. parce que man léeg nit woo wax ma bu mel ah de sama faire. bon nañ leen trier leen hmm. ñi ils n'ont pas du sang ils n'ont pas posé d'actes grave de saccage de pillage.

Euh, ay nit bon parce que nous dañu enfreindre la loi mhm. bon mais il y a bu vous am yar nañ donc je tamit nañ vous euh, donc clémence ngay à non man, nañ demande nañ Je quoi nañ vais mhm. mhm. mais encore une fois Nous nga dañ doon toj di rajaxe di rey di di di di di di di tooñ di taal kër jàmbur yi ñooñ moom yoon def liggéeyam yoon dafa def parti euh, LDR Yeesal les réformateurs euh, actuellement ci ci ci lan lañ koy euh, ci lan lañ ko war a mën a séentu ci par rapport ak échéance yi ñu dëgmal maanaam maanaam ci yan dynamique politique la nekk fu toll mhm. alors loolu xam naa ni xam naa ni ba léegi yaa ngi biir bennoo parce que boo fa génnoon wax nga ko. waaw waaw. <laughs> Euh, mais fi mu toll. Hmm. fi toll daal mooy di euh, président Macky Sall wootee ndaje keroog le 10 juillet. Hmm. ne moom di informer bennoo hmm. ne moom du ñu ko du bokkati ci wote yi.

carte blanche par rapport ak choix bi mu war a def. par rapport ak choix bi mu war a def. Mhm. ma ne ko ñun mën a gënoo joxe carte blanche parce que waxtaanaguñ suñu biir. Mhm. altine laa ko wax talaata mu toog ak man. Mhm. ñu waxtaan waxtaan ci lu yàgg yàgg yàgg yàgg xamal ko ma ne ko toogaguñu ak suñu waa parti danaa toog ak ñoom lu ma fa jëlee rek dinaa la ko indi. ñu teg ci ay fan ma woote comité directeur comité directeur son parti. sama part nag ñaari instance la am lu ñuy wax comité directeur am lu ñuy wax bureau politique comité directeur la woté ñu waxtaan ma ne leen lii laa ci ndaje ma yéen léegi lu ci seen xalaat ci gattal ci teunk comité directeur ne ma jow jox nañ la carte blanche ginnaaw buñ ma santé, ci taxaway bi ma am ci euh, weti président ci kanam président Macky Sall ak cofeel ak fonkeel ga ma fa wane ne man fonk naa ko suñu waa parti ndax nag parti mënul jox carte blanche parti ay militant nag mën nañoo jox seen leader carte blanche ñu ne ma daal comme yow ba nga demee ba ci kanam président Macky Sall ba noon ngaa tànn te boo tànnoon même boo ñëwee fii ñu mari tamit dañ koy wanaasu rek mais nga ne tànnoo joxe woo carte blanche da ñuy laaj suñu xalaat ñun doonu gën a gore jox dañ la carte blanche ci nga xool ci ñett yi bu la ci doy rek doy nañu hmm. benn su la neexee nga déclarer sa candidature soo ko defee daan ci ànd ak yow hmm. su la neexee nga jàppale candidat bi nga xam ne moom la bennoo bokk yaakaar di tànn hmm. soo ko defee daan ci ànd ak yow bu la neexee nga jàppale beneen candidature bu nekk hors bennoo soo ko defee tamit daan ci ànd ak yow waaye nag loo ci mën di def na nga woo bureau politique bureau politique moom mooy dogal hmm. bureau politique nag suñu parti mooy ñeent fukki département yi ak juróom-benn kenn ku nekk indi juróom-benn nit ñetti góor ñetti jigéen ñetti góor yi na am xale bu nga xam ne amul 35 ans ñetti jigéen ñi na am xale bu jigéen bu nga xam ne amul 35 ans hmm. ci 46 département yi. Hmm. nga yokk ci organisme interne yi. organes interne, fédération des jeunes réformateurs ou fédération des jeunesses réformatrices fédération des cadres réformateurs fédération des femmes réformatrices coordination des enseignants réformateurs conseil consultatif des, jeunes fédération des élèves et étudiants euh, réformateurs d'accord Il y a fàttewuma ans, il y un organisme interne un

d'accord et cetera loolu nag àggaguñ ca. ok maanaam loolu laa wooteegul. Mm-hmm. ba xam mooy bureau politique bi waaw bureau politique fan la wànnent mm-hmm. war a mujjeeg ay gëtam en attendant nag comme ñu ngi bennoo te bennoo euh, nekk ci wut candidat. Mm-hmm. te mandat bi ma jot jàppale candidat bennoo bokk na ci. wala boog mën a jàppale candidat bennoo bokk na ci te ma sëq ak jàmm. ñu petit candidat yi nga ñoo candidat à la candidature loolu moo tax ma jóg sol sama président Omar Sarr ànd ko président Abdoulaye Balde pour ñu doon dox médiation diggante candidat yi te candidats. candidat en tant que allié ne leen daal bokk ndey bokk yëkkateendoo dóorandoo mooy yokk chance bokk loolu nag wundul wax ne. di d'après bi ngeen ni nga leen dégloo am nga ci am nga ci yaakaar quand même. ah waaw nit de moom mën naa am toujours euh, yaakaar ci li muy dox. Mhm. waaye nag xam nga nit daa jafee xam. Mhm. waaw maanaam nit ki ngay waxal euh, la personne est la personne humaine est insondable. d'accord waaye daal. Mhm. am nañu yaakaar ne euh, la sagesse. Mhm. va finir par par l'emporter par l'emporter eh. ñu terminer euh, bon ñu dugg biir Sonacos dugg ci diwlin gi defe naa pratiquement politique bi euh, à moins que nga <laughs> nga nga am peut-être loo xamante ni bëgg goo ko wax léegi yow da waaw am na lu bàyyi moom yi nga xam ne wax ko daa jotagul mu ngi noonu loolu comprendre naa ko moo tax ma wax ko dafa voilà dañuy bàyyi ba tànn am ba pare d' accord nu xool D'accord. Euh... Le, le, le, candidat bo xon buñ tandé par ñu apprécier. <laughs> D'accord. Euh ci campagne bu mujju bi lu tollu ci euh ñen fukki junni danaka ñen fukki junni ak ñaar ci ay tonnes gerte ci nga ci ngeen col mom ngeen collecté suma jumul 22000 tonnes voilà non defena nonu la ci ci wolof suma jumul mais euh, li nga xamante ni seetlu nañ ko moom mooy. mooy ñaar fukki junni. mooy ñaar fukki junni. ñaar fukki junni ak ñaar voilà ñaar fukki junni ak ak ak ak ñaar. donc euh, donc euh, ci ci ci ci ci li nga xamante ni moom mooy collecte bu bu bu mujj bi donte loolu amoon na sax mais campagne bi demeewul ni mu waroon demee mais tey ak li nga xamante ni jot ngeen koo am lan ngeen ci jot def ci li nga xamante ni tey par exemple war na mën a. Euh, yóbbu Sénégal euh, fi nga xamante ni tey par exemple euh, dina di bon di war na mën a tax Sénégal am diwlin bi nga xamante ni moom la war a mën a consommer consommer ko également pour avec un prix raisonnable à moins loolu la ñuy wax. <clears throat> parce que tey pratiquement mën nañ ni diwlin bi nga xamante ni moom mooy diwlin bi sénégalais yi di consommer tàng na trop ci ñoom ci seen poche. waaw Sonacos moom daaw deful campagne bu baax. Mm-hmm. Il y a une campagne de commercialisation. Mais avant que vous l'avez dit, ce que vous avez dit? Oui, je suis venu. Au Sénégal, il y a une campagne de commercialisation. Quand on a... Nous devons comprendre que nous sommes à cause de l'Ohé. Parce que si on de dit que nous sommes à cause de l'Ohé. Nous sommes à cause de l'Ohé kon Sonacos nangam ak nangam volet commercialisation ben volet la ci activité yi Sonacos di def Sonacos tay mu ngi jaay vinaigre. Mhm. mu ngi jaay eau de javel mu ngi jaay ripaas léeg-léeg ma dem jëndi dewlin ñëw diko ko jaayaat xañ na nak sénégalais yi commercialisation mooy li gën a siiw bu commercialisation ubbee rek. Mhm. am Sonacos indi Sonacos moy li xew mhm. mais commercialisation dafa am lu nga xamné Sonacos la war ñun li war ci commercialisation mhm. ko ba ma ci Sonacos campagne bee jot xaalis am ne mhm. lolu la war campagne de 2024-2025 80 millions d'euros. yu taxaw yu ak yu disponible. maanaam ñu ngi koy négocier. Mhm. léegi mu c'est pas encore léegi mu léegi mu sotti. Mhm. te campagne ba la ñu passé quarante million d'euros ma nga des ca banque ba ndax daa comme mu ñu gerte. Mhm. jëluñu lépp. ma nga fa des. donc loolu d'abord wuti xaalis d'abord mooy rôle bi njëkk bopp Sonacos. ba ñu yàlla tegee ci bopp Sonacos ba léegi at mu jet. ñu uti a wuti xaalis xaalis bi teel a ñëw ñaareel bi mooy waajal suñuy seko ndax système caro usine ci la ñu nekk maanaam da ngay xaar opérateurs yi dem jëli gerte gi indil la ko at mu jot ñu defar suñuy suñuy seko bu njëkk dañu wax naan waaw da ngay ñëw sonakos di far ak ñetti fan ñeenti fan juróomi fan ñu ne ah kon nañu nañu yaatal bërëb yi nga xam ne moom la ñu war a euh, réceptionner gerte gi ñu daal di ubbi bërëb ba jamono ji ba wax yow suñu gerte nga fa ubbi bërëb sañcu Malem ubbi bërëb julaa Kolom ca wetu Kolda pour que usine Kaolack bi ak usine Ziguinchor bi ñu mën leen a euh, oyofalal liggéey bi liggéey bi donc Sonacos loolu moo ko war ma nga ca maintenant sonakos dafa bokk ci ñiy jënd ak ñiy jaay waaye du moom dong ñeneen a ngi ci am na ay acteurs étrangers ñu ngi ci am na ay acteurs nationaux yeneen ñoo ngi ci am na yeneen huileries yu nekk ci njënd meeg njaay mi euh, état nag moom mu war a réguler réguler la la la commercialisation maanaam réguler ko ba. huilier bi am wàllam transporteur bi am wàllam opes semencier bi am wàllam exportateur bi am wàllam régulation boobu nag moo manqué ba tax ñu wote taxas taxas boor maanaam moo tax ba affaire bi cóol mhm. jëm benn côté ba huilier yi ñoom campagne amuñu daal

Mhm. et la deuxième la plus mauvaise dans toute l'histoire de la Corse parce que je que ne sais pas si 17 000 tonnes la bas donc bii mooy euh, ñaareel ñaareel bi yees bu Mais, mais, bon ñaareel a une mais mais projection collecte, ngeen di def euh, ci prochaine collecte euh, a une projection ngeen def. non projection telle. parce que d'abord il faut une projection récolte d'abord ba ci kanam ba service yi service su ministère de l'agriculture dugg ci àll bi xool gàncax gi def seen nat def seen i euh en fonction de ça rek lañ ne ah ñun Sonacos de bëgg nañoo jënd nangam mais ñaari at yépp buñu amé objectif aussi duñu ko wax ndax dañuy bañ classe Cheikh Sadio bi ngeen ah yéen kat néewoon ngeen da ngeen am 200000 tonnes légui 22000 deux ngeen am da ngeen amoon 100000 motax légui tax ñun dañuy am suñu projection interne établir ci suñu budget ndax munoo yoré société bi te am budget mais duñu ko déclarer parce que comme campagne bi mom ñun maîtriser wuñ ko amuñu benn moyen aussi pour maîtriser ko té loolu ajuwul ci ñun. La campagne bi ça peut ça mën nañ mën nañ japp ni peut-être dina rassurer parce que xaalis yi ñu ci duggal 100 milliards lañu annoncer euh, pour. Euh, euh, voilà donc waaw waaw waaw loolu campagne agricole la. campagne agricole bi xam nga campagne agricole lépp lépp lépp luy agriculture. ca loolu donc c'est c'est c'est maanaam beaucoup plus global matériel mbay baa nga caag engrais baa nga caag la ñuy jàppale ñay def euh, sobleeg ñay def leneen ak leneen ak leneen loolu gerte gaal ministère de l'agriculture mhm. ministère de l'agriculture moo koy gérer mhm. alors mais am nañ yaakaar am nañu yaakaar en tout am nañu yaakaar en tout cas ni muy tawee fan yi mhm. bu dakkul ba début octobre bañ dugg octobre lu bari suñu am ah, mën nañoo am yaakaar ne daañu am nawet bu nawet bu nawet bu baax waaye nag xam nga daaw. Mhm. tawoon na taw yu baree bari. Mhm. mais gis nañ ne ni gerte gi waroon a meññe mhm. ak li ñu waroon a am ci ay ton daaw malheureusement baykat yi gisuñu gisuñu gisuñu loolu. merci ba ko ni gerte waroon bare. Euh, barewoo. jërëjëf Modou Diagne Fada président du parti LDR Yeesal les réformateurs démocrates. président du conseil départemental de Kébémer titre bu ngeen di solo <laughs> dernière fois yaa Mako ma présider également donc président du conseil départemental de Kébémer Modou Diagne Fada moom lañ Don waxtaanal Tay, ñu bàyyi ko rek mu tàggatoo ak mbokk internet yi. bu dee également message. Euh, jërëjëf. Euh, euh, oui diisoo diisoo également dañ koy fàtte. coordonnateur moom mooy voilà moom mooy le coordonnateur bon finalement euh, macha allah la ñuy wax rek parce que yan bi xam naa ne diis na waaye. xam naa ne également attan na ko. donc ñu bàyyi ko mu waaw waaw ngi leen di d'ailleurs sama gars yi. Mhm. xam naa ne incha allah daañu daje semaine bii ñu semaine bii ñu jëm. Mhm. ñu tasante ak ak ñoom am nañu réunion. Euh, ngir waxtaan rek ci réew mi. Mhm. alors Cheikh maa ngi lay sant. Mhm. maa ngi sant sa équipe bi yëf yi guddee na. ndax euh, dañoo guddee jóge bureau ba. Mhm. comme lim ñuy faral di di dalee rek. Euh, waaye nag am ngeen patience parce que ay professionnel ngeen. donc maa ngi leen di gërëm bu baax. di gërëm tamit Dakar Actu. seen directeur général. ak mboolem personnel ba fay liggéey di leen encourager. Dakar Actu yéen du ngeen du mhm. avons de noblesse dans le plus grand professionnalisme. Mhm. kon dañ leen féliciter ñaanal ñëpp jàmm mhm. ah, ñu ngi jëm màggal Touba mhm. muy dix-huit safar euh, di événement bu am solo mhm. ci Sénégal du wax rek pour murid yi de ah, keroog dama dégg benn journaliste mu naan suñu mbokk murid yi ñu ngi waajal màggal Touba ba ne kooku wax du yàqu la et c'est maladroit euh, màggal Touba du rek pour murid yi pour jullit yépp la

kon ñu ngi ciy xaar également selon la cause. bien entendu comme d'habitude. oui comme d'habitude ñu ci war a taxaw daañu ko ci taxaw. alors ñu ngi ci jëm yàlla ñu ci àgg ak jàmm buñ ci àggee ak ñu romb ko ak jam yàlla may jam ñi nga xam ne dañu nar a màggal si ñu dem ci jàmm. dig si jam may ñaax rek suñu mbokk chauffeur yi. Mhm. ne nañu def ndànk. nañu daw Euh, kilifa gu baax daana wax ne daw ndànk dal ndànk daw bu baax dal bu baax nañuy daw ndànk yaakaar naa loolu mooy li ci ëpp solo parce que léeg-léeg euh, man nga dara mën naa xew waaye bu fekkee yaa ngi daw ndànk yàlla mën na laa dimbale ku ku gëmmentu nga nelaw alal euh, bakkan ko gën alal bakkanu ko gën euh, donc kuy dawal ba nga xam ne yow sonn nga nga taxaw ñu dem ci màggal gi ak jàmm jël si ak jàmm euh, di ñaanal sëriñ Mountakha Bachir xalif général kulu murit yàlla yàggal ko fi te wéral ay cëram waaye noonu ñu ko ñaanal nag noonu lañ koy ñaanalee xalif généro yépp yi nekk ci boppu njaboot gi ndax nag Sénégal dafa am lu nga xam ne lool la am mu nekk particularité fondamentaux dëkk bi mooy suñu diine ji ñu am bu ma nee diine nag christianisme. bi ak ñëpp boole naa ci bi boole ne la ñu am mu particularité ñun de dañuy bokk ci ñu koy suuxat duñ mukk mukk ci ne ñu ci malheureusement. am na ñu nga xam ne tey soo leen dee déglu ñuy wax subhanallah rek nga ciy teg mm-hmm. nañu yàlla musal ci ñooñu yàlla yàggal fi xalif généraux yi mm-hmm. yàggal fi suñu euh, kilifa diine yooyu mm-hmm. yàlla sàmm leen yàlla aar leen jërëjëf ñoo leen di gërëm jërëjëf ñu ngi leen di sant ñu ngi lay euh, gërëm bu baax di la sant mu ni ñu ko waxee rek waxtaan wi gudd na guddee na également donc euh, xam naa ni liggéey bi moo la tënkoon moo tax sax d'ailleurs euh, sànq Babacar xaw nañu <laughs> xaw nañu téye tuuti mais euh, vraiment dañuy apprécier toujours euh, dalal bi ñuy dalal ak waxtaan bi nga xamante ni dañ koy waxtaan dans le respect waxtaan ko également ci anam yi mu gën a rafetee ñu lay remercier encore une fois bu baax a baax ci disponibilité bi nga am. lu ci juumte rek. voilà ñu ngi koy jéggulu. jéggulu lu ci baax nag nañu ko bokk. incha allah di remercier également Euh, collaborateur sa maanaam sa takkandeer sax laay wax Babacar Ndiaye ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité bi mu am moom tamit ak euh, toujours ouverture bi nga xamante ni am na ko euh, ci sunuy sollicitation di remercier sa équipe yi nga àndal yëpp di remercier également sunu techniciens yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci ginnaaw liggéey bi bu rafetee rek pratiquement ñoom la donc di jaajëfal sunu internetu mbokk internetu Dakar Actu yi ñu doon suivre à travers donc euh, la référence euh, di len jaajëfal bu baax di len jox dig dajé donc Modou Diagne Fadalindon lañ doon dalal euh, président LDR Yassal, les réformateurs nek également président du conseil départemental de Kébémer yor également nek ci bopp qui gi nga xamanteni tout le temps ñoo ngi diisoo di de lo xamanteni donc mo soxal réew mi di len remercier yeen sunu mbokk internet bu baax baax di len jox dig dajé benen ayubés ak benen gan jere ngeen jëf.